yéen ñëpp fay ngeen. Hmm, man de def naa ko. te ñaanal yi def nañ ko. fay naa Sénégal lañuy laaj. non non réew mi kay bañ fayee du tey réew mi kay ba rajo bu ubbee lañ fay. Hmm. rajo réew mi bu ubbee daal la ñu fay. waaw xanaa ci loolee nee na. ñu ngi sant yàlla naka gàmmu gi alhamdulilah sant bu baax macha allah gàmmu gi. mën ko ci jaam neexoon na lool waaye. waaw vraiment. dal nañ ko waay amiin waay te bu déwén dàq lool waaye bu ren. en tout de bu ren neex na de. bu ren bi day. ah waa ji day anniversaire am bi xam naa ni kenn du moom. sallallahu alayhi wa sallam. daanaan la nag. ah daanaan la. alaaji koo xam ne mi ngi ci ak léegi ëpp na junni at. Hmm. saay bu sa anniversaire ñëwee rek ñu koy màggal. du moromu kenn nag. waaw ndax. waa neexul. weesu na neex lii dafa naqaaj. ba mu fi jógee laataa muy ñëw moom. Ah. leeral ma fi bàyyi woon li fi nekk. bu bu ñu ko gisatul itam leeral ma fi téye li fi nekk kon moom il toujours là. en tout cas day en tout cas day en tout mm-hmm. kenn du moom. il est il est la kenn moom. koy nabi. sallallahu taala sallam. ah. ay waxtaan yi tamit day waxtaan yi tamit waxtaan yi tamit ci gàmm gi day ànd na engagement ak fulla ak fayda. Mm-hmm, mm-hmm. waaw waaw ak dëggu. waaw ak dëggu de. Mm-hmm. ay ay jéegooy gaynde la ñu gis de. laay li ñu naan gaynde bu bukki ba yebee ca doxin nga la. ah gàmmu gii dey gàmmu gii dey kàddu yi dey. discours yi dey kenn du leen yab de. ah déedéet déedéet ah déedéet. ah. lalu na ci njàmbarteeg dëggu. dëgg dëggu. dëggu. dëggu njàmbarte. dëggu. ni mu koy waxee nag dëggu. dëggu dëggu ak njàmbarte daal. du ah waay waay sant yàlla waay si Malick. Mm, mm, yal na yàlla dëgëral taxawaay bi. amiin amiin waay. yal na yàlla guddal fan bi. amiin amiin amiin waay. ah suñu kilifa diine de yal na yàlla dëgëral seen taxawaay rek. ah. yii fu laaj fayda de. xam nga ñun moom Afrique moom alaaji. Mm. suñu état yi. dafa mm-hmm. Mm-hmm. foo xam ne bu ñu fa yeggee impuissant. dafa foo xam ne bu ñu fa yeggee impuissant. waaw. Mm-hmm. waaye. devant le colonisateur. nasaraan bi lu ko neex def la. Mhm. lu ko neex wax la. te yow nga fàtte ne libéré wu nga yàgg naa. yor nga sa drapeau am sa hymne national. yor sa gouvernement sa président ak say ministre mhm. mais état africain yi damaa dama mais est-ce que ñoom xam nañ ne ñun am nañ indépendance. Mhm. xam nañ ko. te bu ñu doon ay buur di. <laughs> man pour man nag yi ah xëy na nit ñi xam nañ ko moo tax. ñoom ñooñu bu ñu leen gisee ñoom ñu ne ci état yi dañ leen ko war di fàttali est-ce fàttewuñ ko. Hmm. ah indépendance économique amu fi. sociale amu fi. gars yi ñoom ñoo ñëw dund loolu li ñu bëgg. côté koppar tamit la même chose. weccet bi nga war a yor di sa monnaie ci boppam ñoom ñoo lay wax ne la baax na wala baaxul soppi ko wala bu ko soppi. Hmm. esclavage moderne la. waaw loolu tam mooy lañ. am ci ay dëkk yoo xam ne alaaji ñi ngeeg seen i monnaie. di doxal seenu doxal. doxal bu baax kenn sonalu leen ci lenn. doxal bu baax. Gàmbi gu ndaw gii ñuy xas sax xanaa dañoo yor seen xaalisu bopp. tales. mais sa njaam du chaîne rek njaam du chaîne rek de. révolu jàll na. Ah, xalaati la boo ko dee xalaat. mën mën na la takkee fat côté bu xalaat sama xalaat day. man day jaaxle naa daal lii ah, yow daal alaaji hmm? yaa ngi star hmm. di sol costume yu baax. Hmm. di nengi nengi waaye yow intérieurement dañ laa takk. ab seen ci ndigg doo dara. mel ni golo ga. golo ga la moom la sama xel dem. golo ga la de golo ga la de yenn ci état africain day ñoo golo ga sodante wuñ dara. kiif kiif mami. ah non ay condition la. non mami Sam. kiif kiif. golo ga. <laughs> alaaji bu fi golo ga. ma xëy sama dënd bi xaw a rëcc tey. golo ga dañ na ñul met dàq ji ko. Uh-huh. muy yéeg ardoise yi ak terrasse yi. Hmm. jaar ci kaw poto làmp yi di lay layi. Hmm. yéeg ci toiwu kër yi di wàcc. Hmm. léeg-léeg sax gars mu romb ab sooroor fërfëlaale taj taj. Ah, waaw waaw li def mëni na waaw sànnee ko. jot garab jotaar jotaar garab. la ngaa ba gars yi naan day laal suuf mu ne waa cas yéeg ca kaw. waaw kay ndiiraan ngeen ko topp de. <laughs> ak yat bañ demee ba ak yat bañ demee ba découragé xam ni kii mënuñu koo jot. gole gi jay jay ba léegi moom loolooy cosaanam loolu la xam. Mm-hmm. ak ji fee dàq. yow di yëkk ko wàcc di tëb di dal jékki-jékki ni jirib gis benn euh, euh, euh, kii yam benn benn concitoyen goloom. <laughs> benn mbokkum goloom. benn mbokkum goloom la gis. golo ga daal sa mën nga ci biir kër ga toog. te moom li ko jaaxal mooy bu rombee ni ñun topp ko te kii moom mi ngi dëkkandoo ak nit ñi. te moom kenn dàqew. nice good fine waaw te kenn dàqew nice good waaw golo gi ni ko waaw. waaw mais yow gars yi nu mu demee nii. Mm. golo gi mu fekk ci biir kër gi nag boo xoolee karaw ga tarkal la tarkal. dañ koo peñe ba mu liis. di ko diw bëyër. dégg nga loolu di ko sang di ko xeeñal lu neex. muy nga lax di ko banaana. mais maa ngi taxawee fii alaaji. ba ba misk. déedéet ak oud wuy ma mi ngi nii. mi ngi meew maa ngi nii. banaana jaa nga saam. banaana jaa nga ne saame. waaw kay. <laughs> firi wi jëkk golo guri si yow. golo gi jékki-jékki ni ko waa mii gain. waa mii lii nan la demee nii. <laughs> mu ne ko ah man de. génn gaa yi tiita. Ah. ku nekk ku nekk nag ak vraiment. yàlla yàlla sa wërsëg ko ku nekk ak sa wërsëg. Ah, mhm. waaw man nag lii la ma lii la ma yàlla ji xewalee. quoi wërsëgale waaw lii la ma xew xew wërsëgale damay xëy. ñu sang ma ba ma set. et eh bon ma naan sama meew. waaw d'ailleurs bu tàng laa njëkkee sax pour sama baat bi mën a yeeweeku. ma pare toog ñu indiwaat bu sedd bi. Mhm. naan teg samay fruits yi. lekk waaw man daal vraiment daal nice daal. waaw su paree ñu brosal ko eh, ba ñu ah, peñal ko karaw. waaw très bien sant daal sant daal. waaw jéggal loolu. dégg nga. golo gi ne ko ah yow de sa waay man de xoolal ay yatama dugal fii. Hmm? ñirtim ñirtim ji ma jógee. daanaka Kër ma Masaar la ba Cité Thiel yow. <laughs> ñi ma doon toxal dañoo dem jaag mujj sonn. may daw di daw ba ni cirib yam ci yow. mais hmm. sa waay yow dal nga ci di. ñun de fu ñu génnee yatti topp ñu mun a ah. santal yàlla de sant la loolu la yàlla ji wërsëgale. yow ay yat man na maa ngi sant waaye ñu ngi santal yàlla. man damay noos. waaye golo gi nga xam ne maanaam mi ngi koy ñeeg yooyu bi mu ne nii bët ba ba gis seen ba ca ndigale ni ko ciix. <laughs> Euh. <laughs> mu ne ko ah. waaw mais gars lii takk sa gen gi nii la nii ndig mu ne ko ah teraanga ji teraanga ji nag lii laa àndal de waaw waaw lañ ma fi yeewee chaque jour daal bu ma ma yeew ma takk ngoon gi léegi-léegi sama njaati gi leen ma ciix téye ma ñu jaar ci corniche bi xaw a doxantu <laughs> jiix jiix bu ma ñëwee mu yeewaat ma mu ne ko yeew waaw ah, nii la de teraanga ji de lii la àndal boo ci du dañ bu ngi du dañ bu ngaan ci ndigg y' a pas de liberté de. baal moom kay teraanga teraanga ji yëpp yëpp yëpp. xamoon naa ne lii dafa neex trop waaye fu mu nekk dëgg. ndig li waaw dañ ko yeew bu amul bu amul buum daal day ëpp. daanaka ci ndig li daal daal doxantu rek la ca am. mooy dàqale nit. ndig li daal bu buum gi daal ci ndig li daal. moo ànd ak meew mi teraanga yi. ah boo bëggee. Ah. ma boole ak sama njaatige li mu ne ko mokk. mokk mokk ci àddina. yow ñun xamuñ lii. <laughs> ñun suñu giir ñun trip trip lañ xam. naka jekk ma xam ne sa teraanga ji rax na. defe <laughs> naa nekk golo. lii non gaa ngi golo yàq tool ñu koy dàq. waaw dafa yàq originalité goro. da koo yàq golo originalité moom yàq. nii yéeg ci jaay yi ak yéeg ci garab. xam nga mbir bi nan lay demee. yëfu golo la. Ah, comme que noonu la demee. Hmm. bàyyi ma ñun daal suñu cosaanu maam daal li ñu xam yëfi golo. waaw kay cirib cirib. originalité gi golo daal day cirib dàq ji la léegi na comme que yow moom pombeeg meew mii fi mu nekk nii moo la gënal vraiment nga moom sa bopp ba tax ñu yow la nii doxalal lekkal lekkal ba suur man dem naa lii moom xaw ma ko moo yëy ah moo yëy waaye alaaj suñu njiitu réew yi eh. ñoo golo ga benn lañ dañ leen a yeew di leen diw bër xoolal di leen sang di leen parfum ñuy costume di xogg xoggale ko di leen defal cortège ay ay ay ay ay ay ay ay teranga kii xamul waaye xoolal fañ leen yeew lañ leen yeew ci taatu lal bi. moo tax gisoo ci président bu yooyu nag de président africain. gis loo ci gis. feebar rek. moom comparé président africain ak euh, ki nekk tugal. Ah. booy bi. kan Macron. Macron ak ñoom ak ñoom Obama. dañuy espoir gars yi non waxuma espoir sax mais ñooñu alaaj dañuy tiit yenn saa yi pression bi day lalu seen doot mais Afrique moom falu fi buur la. Bolivie ce matin nii rek dafa am président bi dafa falu ñeenteelu manda askan wi lu ci daal police ak Jean-Luc Gaynde. waaw alal ji dëkk bi moomu ko nga toog ñu defar élection ku gagné jël. Mm-hmm. suuku. Mm-hmm. mais léegi nag nit yi ñoo fi quoi. waaw du sa alal yi ndono. ii. peuple yi ñooy ñooy révolté ñoo wàllu africain yi. Fafa Rasoul. waaw léegi Alaaji. xam nga keroog yaa ngi wax fii ci rajo bi maanaam la <laughs> wax rajo yombul. <laughs> Uh-huh. xandi la jaan. Uh-huh. dafa am ay mbokk. <laughs> léegi li nga xaw ma li nga war a boo ko reetaanee non non non dafa reetaanlu mbokkam Alaaji. xam ne seen biir groupe whatsapp bi ak moom ci boppam ci téléphone am ak ay téléphone mbokkam. waaw. dañ dugg ne ne xade lajaan Zik FM moom moo wax ñoom mën Diop ne leen ñun suñu lajaan gi. Mm-hmm. <laughs> suñu lajaan gi. ñun suñu ñun suñu ñun suñu lajaan gi. Mm-hmm. ñun ay jaam lañu. ah waaye xade lajaan loolu lu ko mos a fii ci rajo Welaay. ñu ne xat la ñaan loolu la wax Mansour Diop. ah dañuy ñun ay garmi lañu. ah mënu ko ci nan mu ni ñun ay suñuy maam ay nomade lañu. ah, ah! nomade mooy ñoo xam duñ. kii ñu quoi maanaam du ñu toog benn place. waaw mais mooy kuy di voyager di wut teranga. comme comme waa Quraysh. waa mhm. ñun jaam ak gore dañ ko fee mës a wax sax. ba mu jël ba mu jël exemple yi laa fi Quraysh. laa fi rihlata sitaa'i wa sayf. Mhm. rihlata sitaa'i wa sayf. rihlata réew mi métti na de. xam nga sa xam nga sa maam ñun taxaw naan diw jaam la. xam nga sa maam Hachim. tuddul woon tuddul woon Hachim. Mm. dafa tabe woon di ñu. Mm. doon def commerce. jóge mhm. jóge jóge Makka mhm. dem Syrie mhm. jóge fa dem Yemen euh, mais fu mu dem di fa bàyyi teraangaam doy na waar doy na koy woowe Hicham doy na waar euh, Hachim du moins euh, mooy aujour Abdul Muttalib waaw mbokkam yooyu ñoom dañoo am envie wax ba leen ñu wax. waaye mais gis nga maa ngi lay woo keroog. waa ji woo ni benn autorité dañoo koo wax fii nii. mooy ki ma doon rakkam frère am ni day day woote pour pour démentir. ma ne ko ñun autorité boobu ko soo tudd ay waxam waa ji dee ni ñetti nit interpellé ak yow yéen a ko doon wax. te waa ji ñun musul wax tës. musuñu ko tudd tës. ma ne ko waxoo non euh, ko waxoo fi. xam xam nga boo baaxee. ay nettali gi nag. xam nga boo baaxee boo baaxee xam ñu baax. ñu jëflanteeg ñu baax. ci sa biir jigéen ñaale. bu amee ñoo xam ne loolu dérange na leen. dañu lay sosal. sos dafa bañ ko benn nga ñaawook ña nga am. dëgg la ñu bëgg ñoom. yow ngay demantir ba tuddaale turam ndax ñoom ñu tudd ko comme ni ñu la tuddee. mais yenn sa nit ñi tamit war nañ bàyyi nettali gi de. alaay dafa ñaaw de dama ne duñ ko bàyyi non waxum rajo hmm? waxum rajo. waxum rajo. gars yi da ngay wax yenn saa yi benn mbir. wallaahi ñu interprété ko noo xam ne. man de sosal nan ma fi ñaari yoon ne maa ne Alima ak Cheikh Sarr waxal ma ci diw ak diw ak diw xasal ma diw ak diw en direct. ah nga ne leen waaw maa ko wax. non yéen ñi dafa la bàyyi. yoo xamante ni bii. jibi ñaa bàyyi ko foofu. walaay duñ ci sa euh, Lajaan ñi nga xam ne mos ni mu bëggee ay mbokk. wallaahi chaque jour. garmi yéen Lajaan euh, Lajaan yi nga xam ni maanaam ñi leen xamoon sax. dañ leen di wàññi Xadi Lajaan suba ak ngoon guddeeg bëccëg elle fait la promotion. wallaay de familial nañ ko tooñ métti ci suba ngoon fu mu toll di xamle ñun lajaan lajaan yi ñun ñooy diw ñoom lajaan lajaan yi ñun ñooy diw an ay xadi lajaan moo wax Mansour Diop ci rajo bi ne ko ñun lajaan lajaan yi ay jaam lañ waa moom sax moom nu ngi toroxalee boppam waaw dina waar de Sénégal gii ñun lañu yàlla suturaal dañu bëgg ñu tudd leen waaye duñu leen tudd de bu leen tudd xadi lajaan yow la ñuy tudd de <laughs> waaw nu yaay ji tudd sax doomu mère Thiam. mère Thiam moom ñoo àndoon fële. yow la ñuy tudd. kon bëgg ñu tudd ko. dañoo fay communiquer. Jibi ñaa alaaji daa réer benn kalbe bu defoon benn chèque. waaw kër laatuma ko. oui ma ma ma maa na la benn kalpe bu def chèque. six cent mille kii dee xanaa sama salaire la ba muy ñeenti yoon laa ilaha illallah euh, ak benn carte euh, kii nu wax ni <laughs> mbaa famille la jaan gala ma woo di ma woo di ma woo ba mujj gi ma décroché ko te boo ko wooyee léegi ne ko maa ngi rajo mu ne non non non si maa ngi lay déglu sax mais dama am sama kalbe moo réer euh, eh. kii carte d'identité eh, sagakat bi la de ah, moom la carte grise. ah te ak. Euh, tey tey 547 la yow 0 02 00. waaw moom la moom la waaw moom la moom la. Ah, képp koo xam ne gis na ko daal na woote si 77 502 54 60 Alaaji Gueye euh, Alaaji Gueye nee na daa riir le benn saagu pièce wu def nag carte grise assurance permis euh, voilà képp koo xam ne gis na ko daal na woote ci 77 633 93 33 kii moom mi ngi tudd la nee na dañoo riir le benn mbokk mu tudd Fatou Ngom. dëkk Réfane euh, ca Njaareem euh, képp koo xam ne gis na ko daal na woote ci 77 781 03 11 kii moom permis ci turu Alaaji Malick Faye mais Kër Massar la dëkk waaye ma nga juddoo Njaareem képp koo xam ne gis na ko daal permis bi nag Samba Thiam na nga woote ci 77 dañ ko échangeante école euh, police 729 99 42 dañ ko weccoo waaw école police voilà ah jëlee na ma sama communiqué bi sama sœur la waaw waaw waaw Ndiouf valise am moo réer ci benn taxi ah, bu defoon nag euh, Jesner ah waaw ah, brodé autriche ay cheveux ak col dafa réer parce que mu ngi duggee garage bu fële mu tudd sax garage ba hmm. euh, mu ngi duggee duggee euh, duggee ci kër njegéen njegéen yi doon mu wàcce ko garage Thiès ci oto Dakar yi donc ku ko hmm. gis na woote ci 77 563 63 66 kay kon léegi yu fa na feeñ ak jàmm loolu moom leer na kon loolu moom leer na ah. est-ce que waa ji kii ni ñu saaga est-ce que du mooy mbokk xadi xadi la jaan mi ni ko bëgg a sosal <laughs> ndax ko waxee donc recommencé di ah, dem de Eh, ñun suñu xaalis. sama sœur bi Aminata Kébé ñooy anniversaire à toi Mbaye Diaw. say magasin ay ñoom ñu baax ñoom ñu voilà sama frère bi nag Ishaar mu Cheikh Beyto tey la anniversaire am. ah bon waaw ñu ngi koy ñaanal. happy birthday waay moom ak sama sœur bi Aminata Kébé ñoo bokk bés. waaw kay joyeux anniversaire. amiin waay ci ñaani. voilà voilà kii moom étudiant la Alaaji Massine Sall étudiant surmené bopp bi nag dafa dem ba mujj fees. depuis le treize la demoon ba léegi ko gis na la woote ci soixante dix cent cinq quatre vingt dix huit soixante huit hmm, kii moom nee na hmm, waaw waaw suñu tës bi fi jàlloon keroog. Hmm. te jëkkër ji réeroon feeñ na. ah keroog la feeñ. keroog la ah. feeñ ah mooy femme bi taxawoon fii voilà am na ku ñu fi doon laaj te mu demoon Mauritanie. te ñu ni mooy seen taawu kër. yaa ngi fàttaliku tës bi géej yooyu la jógee woon de. waaye programme bi nu mu tuddati waaye. daf maa gis Tiwaawoon fii ma may dox mu daw dab ma ni ma ne alaaji feeñ naa bu ngeen ba may déggee tës bu fekk ma nekk Mauritanie hmm. laa daal di ñibbisi ne hmm? ñibbisi ne feeñ na waaw macha allah waxal ma Ahmed Aïdara ne ko ba ma woowee ma nekk Mauritanie laa mënatul a lekk lu jàll waaw hmm. ah, ma bàyyi ma bàyyi la ma jàppoon daal di ñibbisi bu jël mooy quarante quarante sept d'accord léegi <laughs> tësu tay bi tësu tay bi nag alaaji doy na waar waaw waaw waaw doy na waar doy jëkkër ak jabar la alaaji. couple waaw. Ah, la xalifa doon wax dëgg dëgg. ay lay illah. allahu akbar. en normal mu ngi nii. eh sama. ak tellement belle jabar ji nag ah. li mu xamle daal jëkkër ji bi mu koy takk. waxu ko woon sax ne ko am na aawax te ko suufu xalif bi moo ñëwaat. li mu hmm. waaye bañ demee daal ay fan daal xamal na ko ne ko. nga jéggal ma nag waaye man amoon naa jabar am naa jabar. Mhm. Hmm. yaay ñaareel. Hmm. waaye mbokk yi daal ne ko toogal sëy. Mhm. ba mu ca toogee alaaji di sëyit. waa ji bu aayee ci moom. moom ndaw si. waaw ndaw si mooy dem ca saal ba. moom ndaw si ak jëkkër ji tëdd ci lalu. yaayu jabar ji. dégg ma li nga wax de. goro ba waaw. dégg ma li nga wax de waaja amul néeg. jëkkër ja ñàkk jom. te xale bi dafa sëy si ca kër yaayu waaja. déedéet ah, wala waaji moo ñëw seen kër. Ah, man ma takk jabar rek man di di dem di dem di sëyi. am na góor ñu dem seen kër goro. maanaam man sama yaay sama yaay mooy génn néegam xajal ma man. merci beaucoup. ah d'accord d'accord nga nekk sa jëkkër ca digg lalam. ci sama kaw lalu yaay. alaaj day ba jamonoy baax. bravo xanaa xamoo loolu couple sax. lu ñu nekk xale xale xale. am na xam ne duñ ci toog. boo leen uh-huh. forcé ba suba duñ ci toog. Uh-huh. Uh-huh. goro it am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee sa kër nekk say goro. même boo leen ne yaay toogal nañ ci kaw lal bi duñ ci toog. waaw waaw. <laughs> fii nag couple bi nag ci lalu goro li ñu tëdd. waaw kay. ñoom nag dem nañ alaaji ba réeroo fi mu nekk nii ndaw si bu ko waa ji libéré woon mu dem rek sax mu neex mooy li ñu fi doon faral di wax rek. waaw kii ak sa jabar rek ne ko fi nekk nii daal yow daal il faut mu jugal la du ma la jariñoo waaye keneen dootu mm-hmm. ndaw si nee na waa ji da koo liggéey mooy photo yi la mantulaay woon léegi nii en temps normal ak bi ñu ko liggéey ba bopp bi ëlbatiku waaw loolu nag nag nekk na loo xam ne nag léegi loolu nag xanaa ñu bàyyi ndaw si ci boppam léegi mm. ji ndax lan xanaa moom amul woon beneen ah, léegi léegi loolu nag lañ bëgg a xam léegi bàyyil ñu kii Chimère ana jox ñu ndaw si damaa amoon problème ak sama borom kër maanaam moom ñu doon sëy 2017 euh, laa sëy ak moom jouru appel laayeen le 27 avril la ma takk. appel laayeen lu mu ci laayeen nga xanaa. du ma laayeen mais jour boobu la ma dafa tombe mu takk ma léegi mu takk ma deux ans man ak moom ñu doog am doom doom bu góor ci biir deux ans yëpp utulu ma néeg maa ngi sama biir néeg yaay nekk ak moom. Ah, léegi nag mu ñu war ko génnee foofu. bañ ko waree génnee foofu noonu ilay moom wax ma waxuma dara huissier ñoo fi ne ma signé ma ne ko du ma signé ma xam lu may signé kon du ma signé. yaa ngi moom yéen a dëkkoon foofu ci biir kër promoteur. kër promoteur boobu. da ngeen dëkkoon yéen ñaar dëkkuma foofu noonu néegam la woon. ndeke dafa am ñaari jabar ba mu may takk daf moom laa la expliqué ba mu may takk ilay mu ne ma dama am jabar waxuma dama am jabar moom am juróomi fan la may doog wax ma am jabar ah yow pour yow aawa ah, nga fekk ñaareel nga. ñaareel laa sama mag bu jigéen boobu kon ndeg bàyyi ne ma muñal kon ko dugg nga ci muñal ma bàyyi. te après cinq jours de mariage la vérité bi éclate. waaw kay sama mag bi ne ma muñal bul wax sama yaay ndax kon ko damaa njëkkoon dugg ci sëy ndax man ma am sama doom ma di ko jooy di ko jooy ba sama papa génn ci àdduna sama doom boobu mi ngi man. dañ la trompé wala dañ la violé. dañ ma violé woon boobu maa ngi am 15 ans. dañ la violé woon yow. woon. waaw loolu metti ma sama papa di ko jooy ba génn àdduna. mais xam nga ki la violé. xam naa ko xam naa ko bu baax. mu bañoon doom tey foo mujjee ak moom. kooku bañoon doom bi après mu ñëw ne moom dem ba war a tudd xale bi judd nduróog seen waa kër mu ne moom moo jur doom ji. sam papa ñu ne dañ mais toppewu leen ko dara ci sam papa def na nañ bàyyi ndax ñun du ñu def dara nit daal nañ bàyyi noonu. ci boobu noonu ma am fi jëkkër sama turno papa takk ma ñu may ma ko ma sëy ak moom ma sëy fa sëy métti yaayam fatt ma foofu ak papaam. ba ma génn ci sëy boobu noonu ma toog sept ans. doog a am nga ca doom boobu. am naa ci doom bu jigéen xanaa muy ñaari doom. Mhm. ma sëy waa ji dayeeg moom génn moom six mois mu wax ma wax yi wóor ma sëy ak moom ma ne ko nag laajuma la dara ku ma yor te yàlla rek tax rek laa bëgg. Mhm. yor sama njaboot. Mhm. kon ko maa ngi ñaari doom yi jigéen yàlla moo def fu ma dem di ut liggéey nag kenn du ma jox liggéey. ndax fu ma dugg ñu ne ma da ngay nangu jëkkëru jàmbur. macha allah da nga jongo ma nag. fu ma dem duñ ma jël. mantulaay sama yaay jumbokaan lay jaay bu xëyee jox ma ma jox samay doom damay takk oma nag di jaay ndax bugguma def lu neexul yàlla damay dugg ci dëkk bi pour ut liggéey du ma am liggéey nag kenn du ma jël te samay doom man maa leen war a jox ndax seen papa yi ñàkkuñu mais duñ ma jox ma jor samay doom téye leen te yàlla rek tax tey nag mantu dina metti loolu nag li tax ma ñëw fi ndax euh, nit ku yor ñaari doomi jigéen sa doom yaakaar ci yow tey nga seeg nit ngeen tàggoo nikki na nag duma la bàyyi noonu day yomb. da ngeen tàggoo yaa waa ji ji. waaw dañoo tàggoo. ah cinq jours mariage ngeen am wala. ba ñu amee cinq jours mariage man ak moom sëy nañ fi deux ans. dama continuer après ak moom. donte génne na génne nañ ko kër ga yéen a ngi doon sëy. ab bañ génne kër ga dama continuer di sëy ak moom mais daf ma nëbbu loolu daal moom laa lay expliqué daf ma nëbbu loolu te war ma woon nëbbu loolu moom te mu jël bagage am yóbbu ko kër ci kër aawam boobu noonu mu nekk aawam boobu tam kër yaayam papaam la nekk foofu Pikine waa ji moom moom daal day takk jabar fas yéenewul yor benn jigéen aawam boobu mu ngi Pikine kër wa aaw bi la ne nekk man tamit sama kër yaay. ah ku mu ay daal da lay kër parent. tam ma bañ loolu ma ne ko kon sama yaay dafa génn néegam deux jox ma ko ma tëdd suñu saal bi mi ngi senn léegi dafa jot nga uti néeg. génn néeg deux ans mooy yow sa néeg yaay ngeen doon fanaan yaa ak moom. moom sama néegi yaay sama kaw loolu yaay laa doon fanaan moom mu nangu loolu moom. mu nangu ko. sa yaay di fanaan fan. sama yaay di fanaan ci saal ba di lal basan foofu ak samay ñaari doom yi di fanaan foofu ci saal bi. Ah, ndax bëgg nga sëy rek. ndax sama yaay tamit nee na moom sama papa da defal loolu ay nit. xëy na man tamit comme sama bëgg-bëgg la mu jàppale ma ci loolu. Mhm. léegi nag waa ji moo doon nekk gor téye ma ci loolu. Mhm. wala mu ma nekk. Mhm. waa ji ne ma la utal nekk vocal yaa ngi ma yor. parce que sa yaay mënatul fanaan ci saal. waaw parce que saal day seen. kenn raax ko. sama yaay nekkoon loolu. ardoise la daal. du ardoise mais dañ ko euh, couler mais kenn raaxul ci biir bi. parce que ñun amuñu doole. comprendre nga. léegi sa yaay xale yi fanaan foofu. waaw léegi kon dama war a yaay néegam muuti néeg mu ne xëy na man dama ko bëgg tromper dama ko bëgg toroxal moo tax léegi nag moom balaa man ma koy toroxal moom kenn du ko bàyyi noonu kenn du ko waree noonu day yomb. te da nga ko ñaan bara wala ñu ko util néeg. dama ko ne util néeg. mu bañ. man ko kon ko mënoo yor. nga may ma sama baat. ndax euh, tam xarit. duma ma jox tamxarit bi paase yépp mu ngi man du ma jox su ma ko laajee mu ne ma xaaral ba tamxarit ba jaar sama biir waa kër laa nekk ñi ma toggal sama jabari mag lañ mu war ma jox te jot mu war ma jox ginaar korite xanaa lu dee dee même bu dee benn ginaar nga jox ko sa jabar ni ko togg ko seen waa kër loolu day day tax say waa kër dañ lay respecté mais du ma jox ginaaru korité dama koy muñ tabaski daal laa xam ne dina mën a ñëw dem tabaski sama kër yaay mu jënd xaram ñu dem sama yaay jox ma defar sama bopp defar sama yaram dem ndax sama yaay moom danaan sama doom lépp lu ngeen bëgg ma bëgg leen sëy leen te yàlla rek tax mais sama jëkkër laajum ba may takk ñetti junni la ma joxoon mais xam nga lu tax tey ma ñëw fi dafa am lu ma metti ah! waa li may laaj mooy. Hmm. Hmm. Ah, dëgg la léeg-léeg ñu ne jigéen ñi de muñ leen muñ mooy tax nga jur xaw ma buur wala jur xawma borom xawma teraanga xawma lan ak lan ku muñ waaye léegi la tam nga daje goro yoo xam ne dañuy sayloo seenu doom waaye day mm-hmm. Mm-hmm. ah, ah xanaa xanaa may laaj donc li Fabrice naan may laaj donc mm-hmm. ah ndax nag dëgg-dëgg alaaj bëgg a sayloo sa doom tamit wala bëgg am tamit jur lu baax ba sacrifier alaaji ah yonente sax day am na lu mu waxoon ci góor ak jigéen ñoo xam ne dem nañu daal mm. ba bëgg a sëy séq dara alaaji hmm. daf la ngeen nekk en bonne humeur dëgg la hmm. waaw nekk leen en bonne humeur bu mbir mi nekk viol hmm. waaw xamoon nit nit da ngay nekk ak sa sa jabar viol di ci am léeg-léeg ku góor ki bu ci consentement violé ku jigéen ki léeg-léeg ku jigéen ki violé ku góor ki loo xam ne yow waaw waaw jigéen jigéen mën naa viol tant que ah, consentement amu ci ah. waaw waaw tàngal sa xolu jëkkër genn xeetu tàngal goo xamante ni xelam du ci ne mer ba futu yow ngeen ne jékki-jékki sa xel na ca nekk fa di di def comme tamit ku góor tamit noonu la même chose. waa léegi nag alaaji nag vraiment nag bëgg tamit sa doom sëy rek tax nag xolam dëkk ci. dañ ne la bis boobee bu dee xol yi dafa tàng sax mu ñu lente leen ba ca ëllëg sa wala mhm. ba xol yi dem bëgg yi wala ngeen dem jàpp. Mhm. dégg nga waaye yow gars nga bëgg yow dëkk illaa yow mi diin. ci mer waaw. xam nga. waa ji man dama bëgg xam moom mooy kan la. moom lu mu àndal bay nekk ponkalum góor ñu lay may ay jabar rek nga dem dëkk kër yaa ndeyam ak baayam. waaw aw bi dëkk da ngaa dëkk kër ndeyam ak baayam. yow utoo nekk utoo pantare jéem a wuti pàkk yow daal yow daal sa tubéy nga yor. joxe woo dépense dundaloo. Ah, tubéy ah, amul fulla wala. ñàkk na jomit de. waaye am na fulla de am fulla ñàkk na jomit de. déedéet moom xoolal dafa bëgg moom club maa yombe la abonné. fekk ñu ko ko yombalal tamit. parce que tamit yow sa bëgg bëgg sëy euh, ak sa wayjur lu mu la sëy sëy loo mais y a un strict minimum quand loo xamante ne moo fii nekk ñu mën a wax ne sëy a ngi ci yërëm naa ko de bëgg naa ko jàppale itam ci côté moral lool moom laa faral ndax góor gi moom nu ma ko classe daa ñàkk jom ah, mais ndaw si itam war nañ koo yee ndax moom ay détail la la bàyyi xel détail ay ay ginaaru korité ay ginaaru tam xarit <laughs> ay dàll yooyu yooyu force la yooyu dixième position la nekk waaw neex na xadi mais sëy bi ci boppam en tel sëy bi wax dëgg yàlla waaye sëy am nooy sëy waaye du tub du dëgg yàlla nit de mën na laa takkee ah. sax na la takkee quinze mille francs boo ko nangoo d'accord dara nekku ci waaye na la yor sax yor bu rafet mais na dundal si dëkkal gi sax su déjà mooy mooy mooy base bi xanaa jabar boo ko takkee au moins di nga wut sax foo wér sa ndodd foo foofu c'est minimum nga door a ñëw nag ci léegi nag nga war koo mën a dundal mais yow demoo ba dara déranger la lu dul sa goro génn ci lalam nga tëdd ca kaw lalam moom séq kook moom yow doom nga nangu ndey ji jur doom it nangu ah loolu nag wax dëgg yàlla moom beneen yenn saa nag muuroo kol gi toog ci digg lal bi photo noonu la na leen lu ne de ah, man de du ma yëkkati sama ndey ci lalam di fa tëral kii que ce soit su ma mënta teggi sama lalu yaay daal indil ko lal gu gën a bees ne ko tëddal fii ah. toog xaar yàlla wax dëgg yàlla duma ma la yëkkati ñëw di jël jëkkër di ko fa tëral jëkkër na wuti fu mu ma tëral bu ma soxla looloy dëgg jëkkër muy wuti fu mu tëral jabar ah. <laughs> waaye jabar di wuti fu mu tëral jëkkër non non parfois tamit situation nit day dund situation boo xam ne comme li may wax rek danga naan mami mii bu ñàkkee man ma torox parce que sama wërsëg si ma la daan jaar mhm. gis nga femme bi du dund ay traumatisme yoo xam ne ci àddunaam mhm. peut jëkkër dafa ñëw occasion jëkkër taxaw rek c'est mhm. ça mu ne moom bu mu duggee nee na cinq jours de mariage ci la yëg ni du aawa mais terewul sëram da ko conseillé ni ko muñal rek garaawul continuer sëy bi parce que ñaareel la sax loolu la woon nee ñaareel la Ablaye Ndiaye boo xam ne wutoo nekk wutoo lal mën nga am lu ne de sa ji ndong nga gàddu ah mën ngaa am ne da ngaa fàtte suñu xarit ba. Euh, sage femme bi dëkkoon géej waaye sama soppi ba nu mu ak ak jëkkëram ah, ñëw ñëw non seulement amul dara fekk si ndaw si waaye dugal ndaw si ci ay leb leb loo ko fi. yooyu dañuy def nangam def fi. ak ñoo capable coupable te criminel boo xam ne man. ba ndaw sa ba ndaw sa tere ji police. waaw kay. parfum daal la leb bu neex benn parfum bu neex daal la leb saa bu ñëw ni ci bun collection privée yii ñuy jaay nga xam ne njëg gi dañu njëg gi cher daa waane parfois yi doon jël fukki junni yëpp daanu nañu ndax moom 25 lay jar. <laughs> doy na waar. ci laaj yi xëy ñu bëri ñett alaaj daa dikk. <laughs> voilà. amul su ma am ngeen doom yéen ñaar ba benn doom bu góor doom bu góor baa ngi ci biti. ñaata at la am. 9 mois la am 8 bii la 8 bii di ñëw lay am 9 mois. 9 mois kese la amagul 9 mois la am. Mhm. mu tourné sama bopp. kan moo tourné sa bopp. bi ma tàggool. kañ ngeen tàggoo pare. le 24 bële paase. le 24 septembre. avant septembre août lañ tàggoo. Mm-hmm. mais ci biir tàggoo boobu noonu ñu tàggoo avant ñuy tàggoo si laa tàggoo sama sago avant ñuy tàggoo daf si guddi gi guddi googu ma may baat laa tàggoo sama sago avant ñuy avant may may baat tàggoo naa ak sama sago. ci utali ma néeg mbaa nga may ma sama baat rek. loolu rek ñëpp a ngi sama téléphone. si mm-hmm. la ma def loolu. Mm-hmm. fu ma dem toog ñu ma sa jëkkër moo la liggéey ba nga dof la. ñett ñu ma dem ñëpp loolu lañ ma wax seetkat yi ma dem ñëpp loolu lañ ma wax. tàqale ko sago bi nu mu feeñee ci yow déjà. maanaam dama jékki-jékki rek génn sama kër ne yaay doo teg ataaya ñu naan sama yaay ne ma ataaya tey doom yor ma xaar xaaral ma man ko kon maa ngi toog si biir ma génn ñëw toog ma jékki-jékki man mosuma dem te du ma ànd xale ma jékki rek génn dem sama yaay ne ma fu nga ji man ko maa ngi ñëw ma dem toog côté jàkka ji côté jàkka inte trois ma daa dem def sama loxo yi nii pare ma yuuxu jooy. ay xale góor ñoo ma indi suñu kër. ba ma ñëwee ma toog si bundu kër ga ma sama ma dugg suñu biir kër toog sama ko foto yaay. di jooy sama yaay ni ma lan la looy jooy mënuma wax sama yaay nee na man si nu ma doon def man munuma xam parce que soo tàggee sa bopp doo xam nooy def ni ma doon expliqué man laay wax de. sama yaay ni mu laaj ma nee na lan la man xaw ma lu may wax ñu defal ma nee na benn garab rek ma daal di daanu fi ñu ku ma njëkk woo mu ne kii su tusubaar jotoon duñ ko def dootoo leen ko jàpp mm. parce que dañ koo naawtal dofloo ko. mais naawtal bi jotoo dem. jotuma dem léegi nag ñu am benn paa bu ñu ma yóbbu woon paa bi am lu ma def ne man dinaa toog ne sama yaay man dinaa toog mais dina ko def sama yaay def lépp mais problème maanaam feneen fu mu dem dañ ma soloon yaram. ci feebar feebar bi photo yaa ngi ma yor dañ ma sol yaram ba pare wan la ko. Mhm. paa boobu nii ma soo fajuwul say doom dinañ la ñàkk maatulaay. Mhm. te sama doomi jigéen man lañ yaakaar. Mhm. seen ouverture école bi paase est-ce que ma dama dem négocier. ci sama feebar ñu bàyyi lañu jàng seen fermeture yi dara matagul te man lañ yaakaar man maay seen yaay suba danoo war a taxaw fu seen ay morom taxaw. mais yow looy sentir sa bopp da nga sentir ni kilinul maanaam nekku ak sa sago. sama bopp bi fi mu ne nii tey def dara jarul guddi gi des fois nii damay wax sama bopp day jaxasoo ki mu fi yabal nii damay wax ak moom sax après sama jawar mag mooy déglu ni ma yow ay waxul leneen ngay wax yow looy wax ne duma xam. parce que da nga jaxasoo nga baal ma ci kàddu gi daf la dofloo moom la ma def. te moom nangu na ko reconnaître na ni moo la def dara parce que bëggul keneen jariñoo la. parce que wax nañ ko ko nuñ ay magam wax nañ ko ko mais ñoom tamit xëy na nuñ ko ko waxee ñoom jàpp nañ ne moom waa ji defuma dara. après ma dem police golf porté ko plainte quoi police golf ne ko soo defee nga dindi mu ne man defuma ko pour mu dof dama ko doon faj ay tànkam la moom waa ji loolu la wax. mais yow bu waxee yow lu mu lay wax. waa ji soo xam la la may wax bul dem bul dem sëriñ demal ci hôpital ñu faj la ndax wéroo yépp ñu sama téléphone. mu ne wéroo da nga dof. waaw mais musul reconnaître ci ojo yi ne moom moo la def dara pour nga tàqali ko sa sago. dëkk bi mu demoon de ba wax ko sama mag bu jigéen mi ngi fi sama téléphone ñu ko dafa am ay liggéey yu may def foofu benn paa muy liggéey ay bagage am na lu mu ci waxoon nag moom ne ko dëkk ba mu la am lu mu doon def foofu di suul mais man fépp fu ma dem ñu ne ma dëkk bu mu demoon la def armeer yooyu suul fa li moo tax nga tàggu sa sogo léegi nag man ñëw ma fi kon ko ma te yaar rek tax bàyyante nañ dama fi ñëw di ut ndimbal ku ma dimbali ba mu faj ma ba ma wér am na paa yi ma duggante mais xaalis bi ñu may laaj awuma ko ndax sama yaay amul doole sama benn mag góor moom laa am am na ay mag ñeneen ñi amuñu doole benn mag góor laa am bu xaw am doole jabaram dafa feebar yor ay njaboot yuy jàng. donc yow ku la faj rek nga bëgg. faj rek laa bëgg te yàlla tax dimbali ma sama doom fii ñu yegg si nii amul sax couche agité amuma sax couche ma couché sama doom comprendre nga. dañuy wax dëgg te yàlla tax fii dañ ne képp ku fi ñëw ku la dimbali nga bëgg man ku ma dimbali sama njaboot dimbali ma ci sama bopp loolu laa bëgg. ah kii daal moom. Mm-hmm. Ah. ay càmmiñam day yoon ñoo jóg. Mm-hmm. bu dee am na ca. Mm-hmm. Mm-hmm. nag soxna yoo xam ni moom am ñuy càmmiñ. man daal alaaji xam naa ne sëy daal. Mm. comme la ca góor ga waxoon rek dafa am bakkan. bu di xasee daal ba jeex. man daal pour man daal réeroo daal ak naqare mën na caa bañ am. sëy bu jeex. waaw ah. wala. Ah, dëgg yàlla ah surtout bu fekkee nee na ma doo sëy ba ma fasee nee na ma dootoo am doom. Mm. ba ma fasee lii moom nag dana daan dafa yàq. moom kat nee na du ma may baat ndax nee na lii ma du ma du ma fase te te dootul sëy ak man doot. dañ koo gëm a ah dañ koo gëm rek. Ah, def def fi day am de. dafay am nag. alaaji ah lay nekk du dëgg. ah alaaji baax waaye terewul dina tëral. dina tëral dina sonal say mbokk. ndaw si nii nañoo ma leemu ko ci bopp. ji mënulu ko dara. waa ji ab saay saay la. ah mais yàq da ko de gis nga ko. yàq. nu mu ko def nii lii e da gëm rek ci yàlla kii da xam nga c'est que man conseil bi ñu koy jox ndaw si may jox ndaw si mooy bu mu jël yëg-yëgam nag jëmale ko ci njibaar yi mhm. ñoo lay dofloo mhm. parce que jibaar yi ñoo ko gëmloo ni waa am na lu ma la def donte sentir na ni am na lu normalul ci boppam mais na ko lu ñaan bu sell pétaaw yi takk ci bopp yeeg sunguf yeeg geenu muus yeeg yooyu gis nga safara du fay safara safara ndox moo koy fay. Mm-hmm. waaye bu defee xam-xam bu ñuul bu bon. da ngay dem ci ñaankat yi ñu ñaanal la. Mhm. ci alxuraan gu sell. waaw mhm. mu takk ci bopp beeg yii nii mhm. a la. a tax. la lu ne tamit. di ko moom lan ko war a def parce que fu jotee am rek. na ko ne def sa morom. déggoo lu mu ko looy néeg lan jotee sama néeg yaay mënatu yaayam ca saal ba doon fanaan mujj gi saal ba di senn parce que nee na kenn kenn raaxu ko waa mu yaayam day delluwaat néegam forcément comme sama yaay amatul fu néegam utal néeg bu moom mu ne ko mënul ut néeg mu ne ko may ma sama baat ah sëy tamit nag du xëy du xoolante suba ba ngoon boole ci mu la mayee hmm. ndaw si am beneen njëkkër doy na waar de doy na waar de dëgg yàlla en tout cas góor ñi nañu bàyyi li ñu def jigéen ñi waaye jigéen ko war a boo ko fasee bu ngeen tàqali ko bàyyi ko dëgg yàlla boo ko bàyyee bàyyi ko waaye waaye bàyyi naa la kenn dootu la jariñoo amul ah. fenn bari na fi nag de du la may sa baat mm-hmm. amul fenn naan da lay koñe jigéen bu jigéen ci lislaam bépp jigéen boo xamante ni bii sa diggante si dëkk mënatu leen a nekk ngeen mm-hmm. séparation de corps boo toogee trois mois bu la mayee baat ak bu la mayul baat sëy bi tas naa wax ko ca kaw bu la mayee baat laaj ak bu la mayul baat sëy bi tas na mhm. utal jëkkër bu takk nga sëy mhm. bu dee ci côté justice nag dañuy interpeller magistrat ñu dimbali jigéen ñi ñu ngi souffrir mhm. ñu ngi ciy def jigéen ñi góor wallaahi du ma la accordé divorce du ma la accordé divorce ku suuxa nga jëmale ko fële góor ñi nag ñu ëpp dañuy ñu suuxa te dañuy toog di duñ def dara ay six ans sept ans nga xëy marié rek ñu porté la plainte pour bigamie Euh, ndaw si euh, ngay am ci moom yëg boo xam ni. doyagul euh, doyuloo suuxa xam nga suuxa. on mhm. mhm. dirait bu la suuxa. suuxa. góor ñu bëri dañoo suuxa. a mhm. bu suuxaa nga muñ. da ngay mel ni ku dàqale ko sa sago sax. jigéen ñi ngeen di ngay def ndaw si yëpp doo ah, ah, ah, doy na war jigéen ñi ngeen di tooñ waaye. man xiyaam dina metti nag. jigéen daal boo mën a yor yor sa borom jigéen ñi képp ku nekk baraata fee ak ki ki la takkoon mu lànk ni du la fase jàppal yi de ñetti at ñetti weer boo gisee mbaax ñetti yoon wutil jëkkër te sëy te xaar ko ci yoon kanamu yoon tus du ci mujj ah. tus maa la ko wax du ci mën de mën de vraiment tàggale ko jigéen ba nuppi daal ne ko daal kenn dootu la dootu dootu la jariñoo daal lan am ah. soxor la bokk de. amee nga àq jigéen ñi waay jigéen ñu bare amee àq mm, fi mu toll nii jigéen ñi may message na man maa ngi toog deux ans. waaw waaw euh, nangu maa fase maa ngi toog ah. cinq ans nangu maa fase. wala ci du ñu def dara du ñu def dara ba dégg ne am nga jëkkër. waaw semaine bi nga amee jëkkër. Mhm. ca la ñuy dem tribunal. Mhm. te ñoom mënoon nañoo dem tribunal bu yàgg ngeen liggéeyante seen diggante mu jeex. waaye bu mhm. ñu ko def dañuy toog bàyyi la ba nga am jëkkër rek may foo liñ su ko defee ñu ne da nga def bigami. waaw ñu ne ñu ne jëkkër ju la ju ko ëpp doole da koy dagaale ci àngal guddi ni ko sama jabar xoola parce que comme takk naa ko noppi. sama jabar boo justice moom la gisatee ngeen dem tribunal la lekk. gis nga kii nee na c'est de souffrance. et mon mari ne veut pas m'accorder le divorce. ak ah, kii ak ah, kii itam loolu la ma wax. alaaj ma takk hmm. fee naa ma sama jabar la woon. dama naan patt bu guddi wut sama ñetti ponkal. waaw ak say mbot li dëgër. parce que la léegi. kii nee na waxuma la jabar mais am na ñoo xamante ne relation rek nii bëggante nii rek. Mhm. sëy sax farata amagu ja. su ma mhm. amagu alaaj mhm. soo leen bàyyi tey nga de. Eh? waaw danañ lay liggéey ba danañ lay mm-hmm. dañ lay liggéey ñenn ñi dañ lay woo ñenn ñi dañ lay dóor. Euh, mooy kom bëggante di la ko yàgg sa di la toroxal di la wax yu ñaaw. te amaana dara amu ca. yàgg sa jëkkër. déet xanaa dara amu ca. xanaa kay xëj na kay woo eh. jëkkër ñu lay kar ci mbedd yi di la dóor ak di la wax yu ñaaw. Uh-huh. waaye nga dem ba am jëkkër. Eh. ñoo xam ne ñu teg sa der bi lu ñaaw de. naan jëkkër di def naa ko li def naa ko li fekk araam. ah non loolu ñaaw na. lu ne la def lu ne la ñuy def. wallaahi. kaa ñu nekk daal du force am na xam ne ñu ngi subir. kaa ñu dund kaa ñu nekk kaa ñu sëy. wallaahi du force nag. la am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi subir ah. bu gël daal day naturel nit daal nit sax bu la suuree da nga koy ah, jom. jom ah. jom nit bu doyalee ci yow da ngay doyal ci moom. nit day am jom. wax dëgg yàlla. amee ah, alaaji mooy ñi nga mooy ñi nga xamante ne nii rek dañuy bëgg nit. yaay ji wala papa ji wala mbokk yi. Hmm. ne la ñun duñ la may suñu doom parce que ñun duñ yow wallaay xeeb la xeeb la waaw. wallaay alaaji man ku ma xeeb ma xeeb la ku ma xeeb ma bàyyi laak la nga yor. ku ma xeeb dama lay yab boo ma xeebee rek ma yab la. wallaahi boo ma waxee dama fa dul ne di la tontoog yooyu sañu yóbbu sama samay wax damay naan reculer dem toog takk ku baax yàlla waxul kenn dara bu tayee mën nga maa bañ de alaaji de waaw alaaji mhm. bu tayee mën nga maa bañ bu subaa it mën nga sama loxo jotul sama ginnaaw ah, jiin ma dëmm jiin ma ñàkk mm. jiin ma ndóol jiin ma ay gaaf ak baadool waaye bu ëllëgee day ah. bu ma yoree ah. alaaji fii kan nga fi gis ku yor ay états yor ay milliards ñu jiin la dëmm amul kan nga gis ku yor ay états yor ay milliards ñu jiin la. amul ambaado la amul amul. kan nga gis ku yor états yor ay milliards ñu jiin la ko ay gaaf. amul ne kii boo duggee ci moom dellu ginnaaw amul. mës nga ko gis déedéet. Ah? du fi réew mi nii de. ah xaalis bi fi mu nekk xaalis bi moom alaaji loxo yee seexluwul xaalis. Mm. yow dalay leer ni kii sama sama sama sama sama sama sama sama goro nangam lay liggéey. Mm-hmm. waaye comme que teraanga nga cee génnee bu baree bari ma nga ma cee yóbbu màkk ak yu ne. Mm-hmm. danga naan waaw rek. ne pat ne waaye bu dee kaajee kat sax ci aw xaalis gu dul jeexit bu la ñaanee sa doom nga may ko. dëgg la <laughs> ah alaaji ñaata yoon la fi goroy bañal. sa dëkkandoo sa mbokk. waaw waxuma dëkkandoo de. koo bokkal benn meen wala genn gone bu naawee nga naaw. Mm-hmm. nga bañal ko sa doom bu jigéen ba pare may ko tubaab. ab tubaab bu xonq nga xam ne alaaj yow xamoo fu mu soqee mu xamoo xamoo ndax moom ay bolond ko jur xamoo ndax ay boroomi karo yu ñuul waaw ndax en général tubaab tubaab yi ñu may yëpp ay puttu puttu am <laughs> dégg nga dégg loolu mm, mm, mm. xamoo fu tubaab bi ay puttu puttu xamoo weex tàll wala bu xam ko cooy alaaji dégg xamoo xamoo loo ko dara duñu takk xale yi de jël ko may ko may ko sag doom bu jigéen mu dikk ci kër gi ñu naan waaw moom kay moom ndeysaan tuub na alif la miim munu ko. wallaay déggoo ma de alaaji. du jàpp du julli. jàpp du julli. Hmm. watal bopp bi keroog bi ngeen ko ko waxee la leen ne sama karaw gi boo leen ni ko tippi dagg ma yemale fi ngeen ne ko non garaawul c'est pas grave loolu sax moom vraiment sunna la rek du farata. Hmm. <laughs> waaw bàyyi koog sobe. asadoon laa ilaaha illallah jooju alaaji asadoon Muhammad rasulullah ji pour mu répéter ko da koo mënul sax day mujj bàyyi. day bàyyi danaa leen vraiment lii ngeen may wax loo daal. c'est difficile oui c'est difficile j'y arrive pas j'y arrive pas. je peux ah, <laughs> mënuma ko mënuma ko <laughs> mënuma ko mënuma ko mënuma seede te mënuma jàpp mënuma ko ah. mënuma ko je peux pas <laughs> mais je peux pas mënuma ko mënuma ko mënuma ko xoolal alaaji ah. teewul condition yi ñu war a teg yëpp condition yi gën a ndaw yii nii rek yi gën a ndaw basique basique xoolal du sotti da koy jël teg ko na leen mais du sotti ngeen xud xoolal ba pare ab imaam yi ñëw ak i adjoint ñu toog ci jàkka ji may ko ko ne turu tubaab bi nan la turam tuubam gi kaddu ñu ne non non ñun tuddee nañ ko Mouhamad kaddu imaam des na ko inspecteur Sénégal ca saasa wala tuddee nañ ko Mansour tuddee nañ ko Ibrahima mhm. ca saasa la ko njaboot gi sàkkal foofu benn tur woo xam ne moom sax yëgu ko waaw rocci Jacques bi way mhm. ñu may ko ko ci farata yàlla sunnas Mouhamad te gaayan bal ba na gone ga nekk moom Europe alaaji mu ne ko fi coppit yóbbu Europe waaw xale ba ba muy sax naka jekki sax moom dafa mënul woon sax jullee mënul woor taaye mënu ko mm. subhaana rabbil a'la mënu <laughs> léegi sax nag day naan. waaw léegi nag day naan. ah te a bañal nga ko sa mbokk moo xam ne yéen a bokk diine bokk lépp. bokk geño bokk meen. fii muy doom bàjjanam. wala mhm. doomu nijaayam. waaw loolu la ndax xaalis. te en général da ngay gis day am yàlla day ubbil kee xéewal sa doom fa mu dem mu torox fa. maa la wax loolu. waaw yàlla léegi fii lay fayee fii lay mbugalee. waaye mënoo bàyyi ni ku ñuul ku rafet bi bëgg a dee ñun waa Rituwa Kalla jekk loolu suñuy siñ rafet. Hmm. ñuul suñuy bañ weex. Ah. nga nuñ fi ñukk dem fekk koo xam ne xonkul ci ku jooy weexul tàll la daa am ay put put. alaay bu dee mbëggeel moo waral sax nekku ci. yi mel ne lu ñu wësam. ñooñu xeet yooyu si moustache day mel ne lu wësam ay atam nag doo la ko wax mukk. ci kaw ci kaw day mm. suuf gi mel ni lu ñu taayee. Mm. maanaam day nagee kaw. mag la ñu. Mm-hmm. mag la ñu. Mm. soixante dix wuti quatre vingt. nga ne nga ne ko jëlal waaw. yaakaar ci moom mu teel a faat. Ah. Ndeye Ndiaye de am na jëkkër mbëggeel dugalul non mariage mixte moom bu dee ah. mbëggeel doo nga ko lal moom. ah Ndeye Ndiaye de am na am na jëkkër. moom dama bu nekkee da nga xeeb fii dem ko fee sa pose dëkk boobu nu mu tudd yow xar yi ah. na dëkk ba tudd ok Walanda Walanda lay sëy. xamul sax xamul sax fu doom di dem. aywa <laughs> aywa xamul sax fu doom di dem bu weer bu weer ak koy toppatoowee Walanda. yàlla na yàlla <laughs> na yàlla na yàlla yal na yàlla dolli sutura. cey doomu xale fii ñoo jàpp ay maam dóor leen bañ bëgg a. dóor leen doomu xale yi dégg wala ko maman Timon. Timon ah. li sama benn tontu doon wax naan mu ngeen demee jur ay doomu multicolore indil ñu ko. <laughs> multicolore la ñu fekk maam yi ko grand-mère. dañoo am di mami. Ah, c'est pas vrai mami la ñu mami papi. ñuy xonq ñuy nekk ci diggante bi. non. en tout cas daal <laughs> Alaaji. Alaaji gis nga lii nag l'autorité war na cee wax. waaw waaw ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk kàttan mm-hmm. ñaari nit nekk ñu am sañ-sañu mm-hmm. yemale fa sëy ba lu mel ni suñu magistrat yeeg yi mm-hmm. lu mel ni suñu imaam yi nga xam ne ñoom ñooy takk sëy yi <coughs> dégg nga vraiment bu iddee jeexee mbaaxu jigéen yi jeex alaaji mm. yow yaa ko takkoon fii ci mm. farata yàlla sunnas Muhammad mm. yow xam nga ni lii moom mooy yoon lii la sariya mm-hmm. santaane imaam yi complice dëgg daaw imaam loolu tamit loolu jarul jarul chercher des médias alaaji ah, des juristes sénégalaises moom waaw mi ngi ciy dimbali jigéen yu bëri bëri te man mii tamit sincèrement témoin laa ci ndax bari na jigéen ñoo xam ni dañ may contacter ma boolewaat leen ak waa AJS te dañuy yore seen certificat de divorce nii ñu jox leen ko sincèrement mi ngi ci def liggéey bu am solo maa ngi leen ci remercier ah. imaam mënul ni li ko gënal ci àdduna mooy takk sëy te mm-hmm. mm-hmm. imaam mënut a wax loolu mm-hmm. te bu ñuy ñëwee ci sëy bu tas mu ni moom du seede bari na ci loolu fu mu tege amul benn imaam bari néew na imaam yi seede sëy <coughs> alors que imaam bi bu ko interpellé daa war a jëkkër ji rappelé ko à l'ordre ni ko hey Euh, islaahu saati benn laay dinaa leen jéem a jubale mhm. waaye bu kenn bañee ba bañ ba xaati góoñi mhm. lii la lislaam wax mhm. hmm. góor mooy fase waaye jigéen day ñaan baat te jigéen bu ñaanee baat góor amul sañ-sañu retenir ko imaam mooy wax loolu waa ji li ko nag comme sëyatul dem na bu gisee baaxam ñetti yoon hmm, sëy ba tas na nga may ko nga ñàkk koo may. imaam boo mu ni mu ni mu ni du seet du waaw mais mais mais Alaaji gis nga gis nga islam alxuraan ji lépp a ngi ci. yàgg na. déggoo ma de. Mhm. xoolal. Mhm. même tribunal li nga wax nii teg teg. tribunal bu leen juge bu wooyee ngeen ñëw. Mhm. day njëkk def médiation. médiation. Ah waaw comme li nga wax léegi ci islam. toog waxtaan jéem a jubóole. alaaji mën na leen dàq laa lay wax nii. may leen temps ngeen ba muy juróom benn weer. waaw ngeen di aller retour. looloo tax sax procédure bi yàgg saa boo leen waaw looloo koy yàggal. saa yi boo leen juge bi yedd leen juge bi. jéem leen jubóole. ndax waxtaan ngeen waaw ndax bu demee ba am fenn foo xam ne nag toll na fa. lan saa sax juge bi ñu leen lal yu ma gën tuddati. double lii sax yenn saa yi ngeen séparation de corps am na ñoo xam ne sax bu ñu ñëwaat ci rendez-vous ba koll la ñuy indaale. am na ci diggante ba yàgg. ak ay yenn ci ay jigéen. wallaahi. ñu ngi koy dund waaye mhm. gënalu kenn. gënalu leen kenn ah, walaay gënalu leen nattu la nattu la gënalu leen. gënalu mhm. kenn mhm. ah. en tout jigéen ju ci nekk tamit ci biir kër di sëy ñu lay noot benn façon gu noot gi wala nga mu leen na sa jëkkër ji amalu la njariñ du A du B du sedd bëgg lu yomb ñëw wéeru ci sa kër. Ah. wala wéeru ci sab njaboot na nga am fullaay nag yow itam nag jug dog def li nga war a def pour si sëy bi nag buy waree taxaw mu taxaw ci mais boo mul fullaay def ko kay kenn du la yedd yow la neex mag moom lu mu def moom la neex def bul yàq fi nag bul ah, boo xamante ne leer na ni yow mënoo ci am na ay 70 ans yoo xam ne ñu soxla takkoo bu baax boo xam ne tubaakal la <laughs> waxuma kaa boobu waxuma kaa boobu de njoñal ganaar takkoo boobu en moom la ñuy woowee léegi. Oh, moo lay joñal gira moo lay jox soo jox la paas jox la essence bu sa oto paane sax mu la wata. léegi waaw bu fekkee daw si bëgg na. waaw te d'accord na ci. moom mu am 60. Mhm. wala 65 da ngeen jaamu yàlla. waaw jaamu yàlla loolu dara nekku ci alaaji. gaa yooyu taxul ñuy wax baax na ci mag. dana yokk fanu mag. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ah alaaji Alima Sarr dana yokk dana yokk mais ndaw si aussi ñu gën a focaliser wu surtout ba a fàtte côté bi côté côté côté euh, ñaan bi ñaan bi waaw waaw nañu ko jàppale parce que ñu wax ne dafa tàqalikoo ak sagoom da koy dikkal di dem ak di ñëw donc ku ko mën a jàppale ci ñaan aussi pour ses enfants mu jàppale ko rek te yàlla rek tax te yàlla rek tax na. sëy yi xam nga li moo tax sama zaar bi ñu ay bopp bi daa dem ak. Ah. bopp bi daa naqari waaw loolu tamit nag sëy tamit nag sëy nag moom jaamu yàlla rële waaye. dinaa yàgg ragal de nii bànneex tam ma nga ca. Ah. dama ne yow eh bu ñu fontoo nga naan ay lii laa yàgg ragal. dangay ragal daal est-ce que sëy du bànneex à cent pour cent ñu ni waaw loolu di ci bokk moom. ah waaw naqar beeg yootu yooyu moom ci sëy la bokk da ngay ah. muñ waaw waaye bu dee cosaan ba moom base ba moom. Ah, bànneex ga la bànneex la. wallaahi moom la a neex bànneex ga la da la ah, jëlee sa kër baay daal alaaj a ah. <coughs> sa kër ndey. nekkul lekk. te nekkul yére te nekkul nekkul yére. nekkul lekk ya. nekkul ndox mi ngay naan. nekkul sangu gi. nekkul éponge mi ngay tëdd. ndax lii ma la limal yëpp yëpp yëpp. am na kër baay waaw waaw waaw. Mm-hmm. <laughs> lii tax nga dikk nag. <laughs> ay yaay bànneex la nag. bàyyi baay rek rek te rek tax alaaji wax rek te yàlla tax ah ñu dindi kersa gi teg ko nële. ah sëy bi nag dëgg dëgg fa yàlla nag alaaj nag dëgg dëgg dëgg dëgg nag bànneex la nag. waxante dëgg mën ngeen ñu dëkk nag ñooy jotee léegi-léegi ay mbirum nattu jote yooyu dugg ñoo waral ñu naan ay del muñ ko góor del muñ ko jigéen del muñ waaye daal xam naa ne sëy daal ah jaamu yàlla jaamu yàlla gi daal lépp lépp la bànneex ga la bànneex ga la bànneex ga la bànneex googee da nga koo mënul am sa kër baay doo ko séq ak ñi góor ñi dëkk du sa càmm du sa du kenn jaam nga leen. ah ka koy mm-hmm. seqali nag moom boo fa yeggee nag dafa war a neex. Mm-hmm. ah daa war a neex. sëy daal boo ci dugg moom na yàlla rek tax. waaw waaw mm-hmm. na neex rek. waaw sa sa sa sa waaji na yàlla rek tax. waaw te yàlla rek tax. waaw kese na neex. waaw na neex na neex. mais mami looy reer mais waa ji nag sa sa waayu ndaw si man. waaw sa ndaw si waayam ji. waaw waaw dañu koo bàyyeeg li mu nekk. déedéet na neex rek na neex. waaw na neex dañ ko tàmmal lu yomb. non léegi nag ndaw si. aywa suuf gi takkum suuf gi daal. na faju ba noppi takk ndigam. comme suuf gi lañ war a. jàppale ndeyam te bu ko waaji woo téléphone ba mu jël. Ah, ba mu gisal mhm. ah, mhm. da koy daw boole ci daw gi sax bu mu ko daw daw ragal de naka daw daw affronté ko. waaw ah. na ko baare daal. waaw waaw. ko baare baare effacé su ko tuddee mu saaga ko. bu ñëwee mhm. mu jël a bool def ci suuf. def ci ndox ak suuf jaxase ko mu jaxasoo. xëpp ndeef. billaahi góor boo koy jigéen a bëgg nga taxawal góor. muy lambar lambari. damay jël bool alaaji def ci suuf. waaw ah. jaxase ko ak doom ba mu jaxasoo loolu mooy xëppandeef. waaw ah, ah. boo nee dagaj mën la ko paw. def ci kaani. waaw boole ci ak samay tàccu. te boo insister ma ne violé na ma. ah alaaji <laughs> nag yaa ngi xeex. alaaji waa de nu ko doon tàggat na de waaye dafa soxor de. waaye nag yaa ngi xeex. alaaji dafa soxor nga de du eh, eh, yomb. Eh, nekk denc nga leen may leen waa ji tamit ñëw wax waa ji tam na ñëw wax. waa ji tamit dafa war a ñëw wax dafa man nag parce que nag am na loo xam ne aussi tamit nag alaaj man jaaxal dama di eh, wax ah salalu goro. nga ne ca sa jabar. Oh moo tax du wax na la ci moo tax du wax ah, na ci réew mi ñu koy def day alaaji ñoom it aaya bi mag sa talaata <laughs> réew mi réew mi dara warul la fee de réew mi. Ah, loolu de mooy tës dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. ah am na sëyal la te yàlla ah, rek a tax te amoo jom te amoo fa mu yow it nga demaa ne fa léng tëddaat fa. Ah. faa juri sëtu borom lal ba. ah loolu alaaj nag alaaj nag. li la sax bëriwul de. ah ah ah alaaj doom ju jigéen ji foofu la soqee ko yow it nga bëgg faa soqe ay bant. ak ñaaw ñaaw na lalu goro koy ba fa la sant addina ci addina ci <laughs> addina loolu nag moom loolu noom loolu day gëw ma ne am na ci réew ah gëw ma ne am na mi de waaye yore nga benn ba wëri ñaar alaaji ñaar ñëpp ku ne seen jël basang sax alaaji jël basang basang jël basang laal ci ay dara wala ay hmm. mbàjj tëdd ca yaag ma dam moo ko gën a jekk éponse ba sax jarta wàccee ndax boo ko wàccee sa éponse goro hmm. doy na ëpp na ëpp na doon waar waaye ma ne jigéen boo koy takkee da lay yaakaar. doo ko jël doo ko génne fa mu ne. xam naa ko wutal ko pantaay. <laughs> bu ngeen bu ngeen baxalee lekk bu ngeen dëxinee lekk. suuf gi lañ war a baax waaw kay. donc ah. yéen a ngi bëggante ah. dafa neex daan ah. dëgg yàlla. xale fi nga ko de. ak contrat yi takkum suuf gi ak takk contrat yi contrat gi. man daal damay dem mission Géejawaay dinaa fa am alaaji lu tolloog une semaine te xale bi ma fa gis bëgguma njaaloog moom damay ñëw takk ko bu une semaine bi jeexee ma ne ko bàyyi bàyyi waaw boo fa bàyyi ëmb na. waa loolu de du fi jeex waaye surtout alaaji Maalik bi wax dëgg nag. wallaahi bëri na yow daal nga wéer ko rek. Hmm. ci xutba nañ ko ci farata yàlla sunnas Muhammad. Hmm. bàkkaaruma parce que hmm. xutba nañ ko rek bàkkaaruma. waaw waaye yow mais ba calculer la nga fay bàyyi nag bu ëllëgee. Eh. waaw gone ga nag bu ne fin ëmb fa ne fa fa doom. Eh. nga baleen fa ne mes. yow dem nga fi bëri sax du jeex du xaaj yaa nga kongookin sa sax. yàgg na jeex du xaaj ak fi bëri. xale bi alaaji Maalik di wër bàyyam ah. ñu naan ko est-ce que sax juddu woon nga ci yoon xam nga loolu tam doy na waar. Mhm. yeneen question ñëw wër. xam nga foo fekk kuy wër papaam euh, fara. kooku papa jeeg yaay ji sëyuñu woon. Mhm. fekk ah kay yoon nañ. nga nga yenu am àq woo xam ne yow. sa doom jooju bu la tëgee bët taxawaayu bés bi ci la. wallaahi alaaj na ñoo xamante ne dañ lay xool nii rek xeen meem la te comme xam nañ la buñ la doxaanee mënuñu laa am dafay jaral ñu takk la. bu ñu ko defee lu ñu ca def diir su gàtt. waaw ba xam ba ba ba doy mais vraiment doyal nañu ba vraiment doyal nañu. ñu ne la mooy waa eh, borom sant wa sant sunu xale bu jigéen bi lii lan la. te mu bu ndaw bi. fekk suuxa wu la rek. waaye yow suuxa gi ko dem borom sant wa wi laa bañ a jaar. te xale bu jigéen bi ñëwoon fii tam dëkk Kër Massar. waaw te mu ne doom ji waajoo moom ay doomam dañoo dem ba def tuuru famille wallaahi dañoo dem ba def tour famille la alors tour famille. pour di wërante waajur nag Mantoulaye boo xoolee histoire am dëgg-dëgg man dama koo fànde parce que njortu ma ni góor wax naa man loolu. kooku vérité la kooku tànn tëf la ci ñun góor Mantou. de dafa njaaloo ji kenn de. Eh, dalay eh, takk raatale takk fase takk fase takk deux trois mois fase un mois et demi fase quinze jours fase la. xoola raatale ba doom yi juddu di bari di dajale. xoola rek ba finalement doom yi ñoom yëpp nañu ni. seen baay bii li mu dajale ci doom. Mm-hmm. mën nañu am famille spéciale famille parallèle ci biir famille bi. léegi dañuy warante. léegi ñu créé ñoom ils ont créé benn famille parallèle yoo xam ne ñëpp. fils de fils de diw fils a yokk xeet. gel bi ñëkkoon di ko di mën a tal dem de Grand Dakar moom ne dafa toog ba yàgg rek. ay nit ñëw sa raax këram. ne ko diw mi sa doom yi suñu doomu baay la temps la sant sam papa nii lay def. ñoo dem bay wërante parce que neen àdduna dafa doy waar nga doon dem bay takkante yooyu loolu ñuy ragal te paa bi dafa dem bay am ay doom yu mag ah te ba tey bàyyi ko parce que xale bi ñu fi mujjee indi alaaji kooku à peine ay 10 ans lay am te na 10 te mu ngi takk ba tey day takk day takk yàlla may ko noonu mayul kenn fu mu takk moom daa farax ñaar ñetti ay bis rek nga jël ëmb jógaale Seydou Dieng kenn 3 mois waaye wuy ma bu ngeen pare ngeen jox ma kooku santam parce que wóoru mën naa def. Seydou Dieng kenn 3 ah. mois de. nañ waxante dëgg. yàlla yàlla dolli jàmm sant bi daal est la commencé wóorul Simon ngi ñëw ah. Simon ngi ñëw. cinq minutes nous séparent de Simon. cinq minutes nous séparent de Simon Faye. <laughs> jigéen ñi dañoo war a cinq minutes nous séparent de Simon Faye. <laughs> silence dans la salle. les prières s'il de lever la séance. yàlla yàlla dolli jàmm ci biir. les prières les prières avant de la séance. silence dans la salle. la parole au juge. les prières s'il vous plaît monsieur le procureur yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi. yal na nu yàlla suturaal yal na nu yàlla jàppale yal na nu yàlla aar. yal na nu yàlla jégal bisam bu mag bi moom ko tedd ki yal nañ ko fekkee ay at yu bëree bëree dénkaay ni def ko ci wax ko ca na askan wi am nopp mu ñu leen déggee ba wàccoog moom mm. Mm. yal na dëkk bi gën a neex yàlla na coono li wàcc xéwal gi na yokk yàlla na nu yàlla suturaal yàlla na nu yàlla jàppale yàlla na nu yàlla aar te yàlla na nu yàlla taxaw ñi feebar yàlla na fëgg seen bopp ñu jiitu yàlla na leen yàlla xare àjjana caabi féete ginnaaw yàlla na leen fa yàlla génnee ñi sëy te amuñu doom yàlla na leen yàlla xéwale ay ba amiin la ci amiin amiin liggéeykat yi itam ci biir boîte yi yàlla na diggante ratax alaaj suñu digganteeg suñuy njaatige it yàlla na di suturaal bi ñuy hmm. gën a ratax di gën a neex yàlla bu ñu beew yàlla bu ñu ëppal te yàlla bu ñu cokkal hmm. <laughs> silence total ah. Ah. kii dëkk mi noonu seen laa cokkal yàlla xam ne loolu la wax kii day nee na ma dootoo góor góor la jëriñoo mukk ndax liggéey naa la. aywa aywa njëkk kaay ma takk la set moom bu wóoloo xalimaam. bàyyi leen da ngay ñëw ma takk la. mu xam ne cokkalul. ah yàlla lu yàlla suturaal. Omar Ndiaye de gàmmoom gi neex na. ah loolu. moom laa la doon waaj a laaj boobu ba la fàtte de ci waxtaanu nee nañ Omar ndugg ndugg ba ndugg naanaa. ah waaw kay Omar ndugg <laughs> dëgg alaaji Amar ah, am nga jom. Umaru ndugg ndugg bu ndugg naana waaw kay alaaji Umaru ndugg ndugg bu ndugg kiir naa ak si ngoom. maa la wax lii mais wax na dëgg. ay Omar ah, woon damay gàcce ngaa laa bu am amam bare ak bu barewul ah, dañ koy yëg. Mm-hmm. waaw am am bu bare ak bu barewul. ka nga takk doomam. Mm. war naa yëg ni takk nga doomam. wallaay dëgg la dëgg gis nga tataaxu ja. nee na nee na làkk du dugg mukk ci biir néegu goroom. Mm-hmm. waaw waxuma tëdd ca lalam. Mhm. waaye loolu ay waay. waaw waxante rafetul. ah alaaji Simeer Jooba ngi noonu nag di meeru Parcelles Assainies ak yoof ak une partie de Cambérène moo nekk nag euh, le grand maire le maire des maires. Khalifa Sall dong fi mu nekk nii la fi dendal nag euh, grade sinon tous les maires du Sénégal. Euh, mooy seen chef si la wàcc na moom valeur am wàcc na bu jamonoy dollar ak CFA. <laughs> kay kay am na liggéey yoo xam ne kay na góorgóorlu jéem a nekkaat maire voilà. meeru Cambérène a ngi nii toog sama taabu jigéen ñi. maa ngi nii jën na. antu lay ci doy ngi nii doo waaso moom na yàgg mi ngi nii cokk la ngi nii toog moom i ngi nii toog meeru Fadja ngi toog. ana kan laa dendal ah sama xaritu maam baa ngi nii min màkka min Madinatul Munawwara Alaaji Mansour Diop tey wooyu mbagam boolu ndox bu ànd ak suuf waaw baa ngi nii xeex la ngi nii alakal la dendel sëtu ko tedd ki borom maamu barrière or ba ca Medine bànni Hachim bànni Xurees. Eh. Serif Ahmed Aydara Karara. Mm. maamu borom guddik barki démb gaa ngi nii toog. léegi mm. guddi waaw ah, kay Serif baa ngi nii. mi dul toroxal waaw waaw eh, Monsieur le maire de la ville de Guédiawaye ngi nii toog Serif bu mag baa ngi nii toog lamin de Simon Pierre Faye ngi nii toog <laughs> moom mi coppati ci ay minutes Simon ngi nii toog Serif <laughs> Ahmed Aydara Karara mi nga xam ne nag dëgg-dëgg fa yàlla waxul waaxul. <laughs> ëppalul beewul cokkalul. ni moom i sàmm gi nii toog sërif bu mag. <laughs>